jërëjëfati mbokk yi seetaan déglu mbégte ñu daal di dellu siwaat ak yéen fii mooy seen cabinet bio rahma muy cabinet boo xam ne moo ngi fii ci Tëngéej ci wetu pharmacie Astel di yoon wi nga xam ne oto yi dem Mbuur ak Thiès fi ñuy taxaw boo ñëwee ba ci koñ bi à droite étage bu weex boobu foofu mooy cabinet bio rahma tey mbokk yi lu ñu indi tey muy lu ñu soxal lool di loo xam ne saa su ne dañuy dund ak moom moo xam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew muy lu jëm ci wàllu ndoxum siti ndoxum siti bokk na ci la ñuy dund te saa su ne rek am na melokaan woo xam ni noonu lay feeñee feeñun woo xam ni bu fësee bu yàggee dafay indi jafe-jafe ci wàllu der waaye bokk ci loo xam ni saa su ne nit ki dafa koy dund xam ngeen ne der bokk na ci la ñuy njëkk a gis waaye saa bu amee jafe-jafe jafe-jafe gi mën naa doon lu bari moo xam lu nit naan lu mu laal lu mu sangoo ak leneen loo xam ne day jafe lool ngir nit ko mën koo xam loolu it mooy tax nit ki saa su ne di wakkatu wokkatu woo xam ni du xam lan la yaram wi di xasan rax ci dolli mu dem ba ay jamono yoo xam ni yëf yi dafay fës génn ci yaram bi ba mu jural ko ay melokaan woo xam ni day am jafe-jafe ngir génn dugg ci nit ñi. loolee la ñu xam moo tax seen bii rax ma indi la gaam bi ngay seen muy gaam bio citidane gaam bio citidane gaam la boo xam ni dafay xeex lépp lu jëm ci wàllu der na lu jëm ci wàllu ndoxu siti ak yeneen yu mel muy gaam boo xam ni dafa am ñetti saabu. benn huile antifongique benn tisane boo xam ni des koy naan ngir mu tuur ko ndox ba mu jeex ak benn huile boo xam ni guddi gi nga koy jëfandikoo ngir mu noyal der wi loolee nag dañ ko tënk ci ñeenti pàcc ngir yombalal kiy déglu ak seetaan ngir buy dund li ni mu daal di am lu ngi koy saafara saafara bi nag du lenn lu dul ñaari junni rek nga am gaam boo xam ni ñetti saabu su doon der wi dafa amoon jafe-jafe ak loolu nga xam ne moom ngay naan naan win wi di benn litre ndox nga baxal ba mu bax daal di teg jël xaaju ko dugg ndaw ci tisane bi def ci bàyyi ba mu sedd nga filtre ko daal di ko naan boo ndekkee nga naan kaas bu mag ak genn wàll soo añee kaas bu mag ak genn wàll soo reeree kaas bu mag ak genn wàll chaque jour un litre pendant 7 jours nga noppalu 7 jours. xam ngeen ne gone yi ñoom tamit day am yu ni mel moo tax ñu leen cee tuddee examen su boobaa ki am 7 ans ba wàcc suuf. kookee du naan waaye li ñu koy jox mooy saabu yu muy sangoo ak crème ak huile waaye ki am 9 ans jëm kaw kookee nag mën nañ ko jox beneen xeetu tisane waaye du doon sunguf waaye da doon beneen melokaan woo xam ni daf koy faj ci biir ngir mu bañ a dellusiwaat kon mbokk mi seetaan ak déglu téléphone bi mooy 77 244 98 05 soo ci bëggee am leneen loo xam ni bëgg nga ko xam ci Biorahma da dangay dem suñu chaîne YouTube ma nga tàppe foofee di nga gis lu bëri loo xam ni cabinet ma daf koy defar kon jàppal gaam cité d'arme bi ñaari junni la 2000 10 mille foo mën a nekk ci réew mi am nañu ay livraison yoo xam ni moo yombal yëf yi waaye amit nañu ay ndaw yu ñu toogal ci yeneen di bërëb soo demee Louga soo demee Mbour boo demee Casamance boo demee Diourbel soo demee Mbour su dee Dakar dañuy def ay livraison mu toll ci 1500 yow mi nekk tugal bitim réew ñaari junni yëf yaa ngoog boo amee GP mën nañ ko yóbbu ba foofu kon 77 244 98 05 ñoo ngi tëngeej indi woon tey waxtaan wi jëmale ko ci gaam Citadine kàddu ngeen àndoon ci ab Ablaye Ndiaye ci seen cabinet Biorahma di leen wax ne abonné leen suñu chaîne YouTube Biorahma mooy tax lépp lu ñuy dugal lu ne nga daal di si gës njariñ wu yaatu jaa ngeen